tay ñoo leen. Eh, ma ne ñu benn sept place sept place bi mu benn minicar minicar bi mu demee ba taxaw moom sa waay génn ñu dajeeg waa. non blessé bi moom am na ñu blessé moom wax dëgg yàlla moom bii kees la jógee ah, beneen bi tuwaaw côté tuwaaw la jógee woyi chauffeur oto bi dem na ah, non blessé na kay waa yóbbu nañ ko waaw non taxu koo garaaw noonu naa moom garaaw bi moom li nekk ci luy métti si yaramu doomu aadama daal xam dara quoi mais ñëw nañ waaw waaw waaw dafa ñëw kii rek mu ñëw ñu ñu woole rapidement mhm. kat moo tooñ ah, daal moom du question tooñ xëy na ndoxul yàlla bu ñëwee rek ñëw na quoi parce minicar bu mu ferende brisement si diggu tali bi sa waaye tamit bu demoon woon si kawam la jëm moom tamit mu génn bu mu génnee tamit waa mu dam mu dal mu jëw si waaw mu ñëw si waaw wàccul tali mu doog a ñëw nii ñu daje noonu la fa demee quoi action bi. waaw ñoo xamal lu gën a réew ba place bi waxoon seen dañu ne dundee wóor ñu wàcc ñu ni ko moom doo dem ay ñoo de nga jàpp nga jàpp ay ñoo de ñoo de non non fu ñu non non. Kenapa? Kalau mereka bumi. ci kanam la jëm wala ci kanam ci kanam la ñëw ci kanam